Euh, fu nekk kàddoo nga fay jóge fu nekk pexe nga fay jóge ngir dooleel kii di euh, Boubacar Sèye mi nekk ci kaso bi alintin Tine Abdoul Mbaye Seydi Gassama waa Y'en a marre ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi yëkkati sa ay kàddu toll na ci euh, daanaka yéesul fukki organisation ak ñett yoo xam ni liñ lenn doon la ñu bëgg mooy ñu génne ko ci kaso bi ci ni mu gën a gaawee <coughs> ngeen jéggal ma yéenekaay bi itam di La Tribune wax na ci Diary Sow ak itam euh, diggante yaakaar ju tas ak lajjate ci fi mu toll xëy na euh, moom la ñu jox ni mën na ko pousser ci li mu nekk waaye euh, fës na maanaam bind na ab lettre pour xamle moom fan la nekk. pop li moom itam ci affaire Diary Sow la def ab unam moom itam ci li nga xamante ni bii moom mooy feeñ gi mu feeñ ci benn lettre bu mu bind kii di pareem Serigne Mbaye Thiam na mu xam la nag mooy rëccuwul benn yoon ay jëf-jëfam maanaam du lu ko. lu tax mu désolé maanaam méttiwu ko ci à ce point comme fi ko nit ñi yóbbu wala mu def ci moom yenn yi ministre bi wax lu jëm ci wàllu justice Walf Quotidien nee na mu ngay freiné ay procureur am ci li nga xam moo tënku ci euh, mandat de dépôt dëkk bi nag Yacine yaa ma gën a xam. Hmm. mandat de dépôt yi moom. yomb na lool tubaarkàlla yomb na loolu de mandat di ku euh, jóg ñu ne la mandat. Ah, dépôt waaw xam naa ni daal moom signature bu fekkee. yàlla bu defee ci sa loxo barke ba boo signé nit ñu laax ko jant bi. Hmm. wala sa loxo yi tege moom ak tey tuuti. Hmm. <laughs> bon da da koy sa bopp rek tubaarkàlla mbubb mi ma sol ku ne xam nañ jotul Balla Gaye alors ñu wax ci paiement wu. Euh, mu ne lan non érage la il faut nga si nga ne lan. mbubb mi ma sol nii. Ah. jotul Balla Gaye. jotul Balla Gaye jotul <laughs> yi gars yi ñii signé ñu dugal gars yi. Ah. wala nañuy teg seen place yenn saa yi foofu de. fu fas dul dem xel dafay bu fekkee xam nga ni nit ki moom mënut a daw mënu laa rëcc. ah dès que négocier ba mu kii baax na ci de. waaye. lu am kese daal gars yi def naa duñ ko natt daal. Mm. nañ ci bàyyi xel. moo tax attaqué war nañ ko boole ci seen stage. <laughs> stage seen stage boo ko nekkee ñu ñam benn benn benn benn semaine. dugal leen fi un mois te seen kasu bopp la sax. kaso di nekk ci kenn ENA war na koo ginnaaw foofu tabax ko ci ginnaaw foofu noonu. alors ñi wax ci euh, njiitu réew mi ak itam euh, fay gi ñu war a fay jàngalekat yi. Euh, en tout cas la gënal moom njiitu bu Sénégal ñu fay leen donc ñi nga xam ñoom ñooy gasaxal yéeneem joojee. war nañoo xool nag euh, ñan lañu ba nga xamante ni bii toujours ñu ngi fayeeku waa SAEMS waa CUSEMS ku nekk ki kàddoom ngir ñu fay leen seeni ay indemnité ci euh, bakk ak euh, BFM bi ñu wax itam ci li nga xam ni moo di siège bu Dakar Dem Dikk directeur général déjà moom mu ngi ci ay pexe mu ngi ci ay pexe pour def li nga xam ni moom mooy siège bu bees bu Dakar Dem Dikk mm-hmm. ñu wax ci réew mi quotidien moom mm-hmm. itam njiitu réew bu Sénégal mu ngi ci euh, li nga xamante ni bii mooy euh, li mu annoncé ci euh, inter interministériel mooy petit mooy premier ministre boo xamante ni daanaka dafa dee ba noppi xanaa moom mooy nekk premier ministre am PM est mort vive le PM le PM vive le PM. premier ministre qu'est-ce que ça veut dire. Ah, mooy maanaam dañoo génne woon dañoo dindi poste premier ministre <laughs> waaye fas nañ fi teg. li ñu naan délégué interministériel yoo xam ne ni mhm. daanaka dañuy yore dañuy yore ay délégué la ñuy doon dañuy yore cëru premier ministre ci fànn bi nga xam ni ci lañ nekk. xam naa ay délégué rek loolu xam naa ay délégué rek Siré dina ko commenté ci commentaire ah, mhm. ah, ah waaw loolu moom damaa xamul damaa xamul lan lay sax waaw xam naa nañ ci wax tuuti Diary Sow euh, ñëw ci l'observateur bi dellu soit ci Diary Sow ak itam ci yoon bi nga xam ne ci la nekk ngir daal di feeñalaat boppam euh, nan la def ba nga xamante ni bi xëy na dugg na ci bile situation en tout cas leeral na ko ki nga xam ni moo di Serigne Mbaye Thiam ci jokkoo bi nga xam ne jokkoo na ko ak moom firndeel ko euh, noppi gi nga xam ne noppi woon na ci benn meel nag la ko Serigne Mbaye Thiam xëy na euh, loola yëngal ko am na jeexeetal def ci moom seq naag ma waxtaan bu yaatu ci wàllu téléphone waxtaan itam ak euh, yaayam ci wàllu téléphone ba tax na sax cellule de crise bi nekk fële ca France tey daañu réunir waxtaan xool fi ñuy yem ci liggéey ba ak itam dañuy continuer wala déet en tout cas police bu France bi yoroon enquête bi moom déjà moom dakkal na ay ay ay yëngatoom ah moom dootul arrêté na enquête am bu ñu sukkandikoo ci l'observateur alors Libération wax na ci Interpol mi nga xamante ni bii xëy na fësal na euh, li nga xam ne mooy notice euh, ndaw euh, maanaam tunk ci disparition bu jaari sow bi. def na explication yu yaatu yoo xam ni ñi nga xam dañu dem ndax euh, seen sagoy bopp ak ñi demul ak seen ay euh, sagoy bopp ñu ni police des police euh, jébbale na benn rapport ci lu tënku ci wàllu boobee jaari sow itam wax na ak ki nga xam ne mooy moom la ñu ko bàyyile woon di Serigne bay Thiam ci lu tënku ci ak laqatoom exclusif moom dellu soit ci affaire 94 milliards Ousmane Sonko yéeni kaay bi la mu wax moo di Euh, daanaka Ousmane sonk daal dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko camoufle dañu ko camoufle <laughs> ah. waaw dañu camoufle euh, li nga xam mooy dossier boobee mais ginnaaw bi nag li ci des mooy euh, parlement yi ñoom jamono ji ak justice bi nga xamante ni bii xëy na ak seen diggante ak Mamour Diallo donc muy 94 milliards yi ba léegi moom la yéene kaay bi exclusif ñëw bindaat les échos. moom la mu bind mooy euh, Sénégal ndax mooy wàccuwaayu li nga xam ne mooy am-am bu léwul en tout cas ñi nga xam ñoom ñooy topp am-am bu léwul wala financement boo xam ne jaaduwul te nekk ca Italie euh, gis nañu ay réew yu mel ni Roumanie Maroc Albanie ak itam euh, boole nañu leen ci réew yi nga xam ni xëy na ay destination wu am-am bu xaw a laxasu ci ak njuuj njaaj la ñuy sàkku nag ak leeraange ci wàll boobu surtout 2020 dañu gis ni yokk na ba egg ci 7 pour cent ci rapport bi nga xam ni becc nañu ko par rapport yeneen at yi nga xam ñoom ñoo jiitu woon en tout cas celui de financier boobee am nañu ay soupçon nag ni blanchiment yooyu li tax mu bari lool mun na nekk financement ci wàllu terrorisme wala am am boo xam ni leerul euh, yéen kaay bi tam wax na ci feeñu kii di jaari soow bi nga xam ni seet nañu ko fu nekk waaye mujj naa feeñ mm-hmm. Pape Demba bi tey nee na Senelec ok lépp a ngi dox waaw ne daal fi nekk bu doon nekk ca Sénégal bu doon ab def ñoom. li ma jaaxal askan wi néewuñu askan wi néewuñu gongo ñu fay liggéey néewuñu gongo. Ah. moom rek moo ni gongo. day na waar bu doon ab jànq daal moom nee na qui se porte à merveille. est-ce que duñ ko hmm. commenté nag. ah ok bi ah, day. Ah, hmm. est-ce si na euh, taxaw ci wàllu Sénégal boobu xam nga ñu ngi naan euh, fan yi ñu ngi doon wax naan ni euh, compteur amul moom tontu na ne ni. gisuñu rupture compteur bu fi am mais beneen bi mooy bu ñu xoolee ci xayma waxtu yi courant daan coupé ci ay jamono ak léegi ñu gis ni am na différence. Euh, kon moom peut-être ci loolu la sukkandiku. Mhm. ne ni daal ni ok. foog nga dellu si si sa xalaat xam naa da nga koo dog. <laughs> waaw ba ci kanam <laughs> ñu wax ci ñu wax itam ci li nga xamante ni mooy euh, Boubacar Seye mi nekk ci kaso bi euh, dafa mel ni daal euh, fausse nouvelle am boobee mu joxe muy lañ ko tuumaal xam naa ni moom tàng na jip en tout cas bari na gaa yoo xamante ni bi tey ñu ngi ci ginnaawam di yëkkati ay kàddu ngir ñu génne ko ci kaso bi jaari sow itam génn na maa ngi woon ci yéene kaay bi di le témoin le soleil moom itam mu ngi wax ci njiit réew bu Sénégal ak wala li nga xam mooy projet public yi muy euh, li ñu nam ma defar ci Sénégal ay construction ak école ak yeneen ak yeneen euh, mu wax ci li nga xam ni moo di euh, Sénégal ni mu ubbee ay buntam ci ñeel actionnaires yi Amadou Hott la def nataalam ci kanamu yéenekaay bi di la Soleil actionnaires yi nga xamante ni bii xëy na au moins dinañu yegg ba ci 34 pour cent donc moom ma ngay gën a yaatal nga fekk réew meeg jàppandal ñi ci dugal seen koom jaari eh, Sow itam euh, pression la wala dafa fugué wala wala lan la lu xew en tout cas yéenekaay bi samp na ci laaj nee na euh, élève bi daal dinay euh, dévoilé maanaam feeñ na ginnaaw bi mu bi mu réeree ñu seet fu nekk mujj naa feeñ moom Diary Sow eh, yéenekaay bi di critique alors ñu ngi woon ci laas critique moom itam ci ndaw si la dellusiwaat nee na ma daanaka ci euh, li nga xamante ni def naa ko ak itam ci dem gi mu dem moom amu ci benn rëcc boo xam ne def na ko bu ñu sukkandikoo mm. ci waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak euh, Serigne Mbaye Thiam alors euh, ñu wax itam ci li nga xam ni moo di programme migratoire ci Union européenne fii ci Sénégal ay milliards yoo xam ni dañu ko sànni rek ci ngelaw li donc euh, ñu ngi bàyyi xel ci organisme organisme boobee nga xamante ni benn ONG la bu dafa confirmer kàddu yi maître euh, kàddu yi Boubacar Seye ngeen baal ma Horizon sans frontières ci mm-hmm. diggante 2005 ba 2019 lu toll ci 200 milliards ci francs fa dugal nañ ko fii ci Sénégal waaye kenn gisul fenn foo xam ne fa la feeñ moo tax euh, Direct News dafa feelu enquête moom itam dellu si ci question boobee question boo xam ne dafay déranger quoi moom moom la Boubacar Seye yëkkati ni ay kàddoom muy arrestation Boubacar Seye bi nga xam ni bari na lool yoo xam ne waxuñu ko ci ci wàllu fond bi ñu dugal ci euh, migration euh, clandestine en tout cas am na benn organisme bu xam ne ay tubaab la ñoom itam dellu si nañu wax lu raw la kër Seye waxoon kon euh, gouvernement bu Sénégal yëf yi daa mel dafa tàng ci ci ci seen loxo lool donte woon ni bëgguñu ku ko laal budget deux mille vingt et bi nga xam ni xayma nañu ko ci wàllu bu fekkee xool nañu ni organisation mondiale di doxee xaw naa takk waaye euh, tous waa Afrique nekkite yow duñu ko duñu ko joxe ah nekkite waa Afrique joxe duñu joxe dara ci ci wàllu boobee loolu nag xaw na xaw na doy waar organisation mondiale de la santé ñun ñoo ko ëpp lu ñuy jëfandikoo africains yi waaye duñu koy <laughs> daanaka suñu dërëm du ci dugg États-Unis daal ak Royaume-Uni ni kii itam fondation Bill ak itam waa Allemagne. Euh, Japon euh, commission européenne euh, ak retard international ak ñeneen daal ñu ci dugal seen loxo yeneen organisme waaye Afrique moom ñu ëpp lu ñu ci bénéficié wu te dañ ko amul nag bañu ñu ko xëy na dañ ko amul. <laughs> mais Birahim euh, kii nu mu tudd ci les États-Unis génn woon ci organisation mondiale de la santé. Euh, euh, bi mu ñëwee bokk na ci décret yu mu njëkk signé mooy dellu ci organisation mondiale de la santé. Mhm. ndax Trump dafa accusé woon ci wàllu coronavirus bi xam nga gëmu ko woon début bi mhm. moo taxoon mu génn te c' est des premiers contributeurs financièrement ci OMS mhm. non mais le paradoxe Biden bi mu ñëwee loolu la njëkk a def mooy. delluwaat téeméeri décret daanaka yu mu signé. bokk na ci dellu si question de bu posé au OMS sa veut dire que est-ce que aujourd'hui on peut mettre en euh, est-ce que état yi dañu war di contribuer au même titre que les entreprises privées parce que ñooñu dañu am ay intérêt parce que boo xoolee les fondations comme Bill Gates est-ce que ñoom war nañu leen mën a accepter ñuy dugal seen xaalis au même titre que les états mmh. étant entendu que état yi intérêt yi ñuy dàq bokkut ak fondation yi intérêt yi ñuy dàq parce que entreprise privée mooy nourrir fondation mmh. et kooku dafay am logique mmh. tey jii boo gisee ñu bëri affaire vaccin bi ñu commencé di ci am dingat bilkili donc question financement qui le Donc, il y a nécessairement des réformes qu'on doit faire au niveau du système des Nations Unies de mhm. manière euh, globale pour ne pas mélanger mhm. euh, les choses en fait dans alors dañu jeexale ak 24 heures donc mu ni jaari sow na ca ca paxam ma mu nekkoon alors euh, génn na ca fan ca paxam ma mu nekkoon pax trou mooy pax te <laughs> loolu moom lii <laughs> la la vingt quatre heures. waaw. mi ngi lay Hadj ko zoom ko. que doo ko zoom ko. ah parce que man sax parce que man maa ngi bëggoon a ah, lii ci kaw nii. parce que cinquante cinq organisations réclament ah, l'implication d'urgence de la CEDEAO mais li ci kaw nii mën ma koo gis. kon baax sama bët neexul. ma nga pax bi la pax bi ah waaw ok sauver local yi waaw waaw. 55 mm. organisations réclament l'implication d'urgence de la CEDEAO. Mm-hmm. Mm. waaw maa ngi ko bëggoon a kii yàlla waaw local yi de xam naa ne di ngeen ko commenté waale parce que local yi de ki nekk ci waa Prévira xam naa ne local yi am gënoon ko dafa mel. Ah, wala bëgg ah? bëre bañ bëre. foog nga bëre dina ama ah? ah dinañ bëre kay. waroon na bëre 2019. bëree mm. woo ko 2020. Covid ñëw bëree woo ko 2021 Covid tey la gën a toog. léegi ñoo ngi toll ci am na am na réew yoo xam ne Covid gaa nga foon te terewul amal nañ seen i élection. mu waree. dara wuute leen nag. fi ah, ah. dafa am ay ay peut-être ay questions ah, politiques yu ñuy réglé. ay nit la ñu bokk làkk ñooñu làkk ñu wolof. ah déedéet kàllaamay gi la rek waaye élection élection la dana am. comme te ñoo ngi audité fichier yeeg ñoom seen. franchement su daaneel nga. waaw daaneel naa bii moo ci desoon. <laughs> ok moom mujj mooy réew mi. bu ngeen ma ko permettre ma dem. jaaga jaa jaa jaa ñu ngi ngay da ngay daal di desandi ak ñun rek fast. Euh, du ma dem lekk sa yaay. ah déet balaa ngay def sa yaay balaa dem lekk sa yaay. nii rek kaay toog rek li nga fi wax léegi nii. kaay toog rek. ci revue des titres yi mënoo mënoo ñàkk. gars yi ma mënoon ma dem. <laughs> Diobène bi faaw moo ne ci nekk ma bàyyi ma dem. voilà au niveau de la <laughs> régie si c'est bon tout de suite euh, ñu daal di jàll ci actu euh, euh, des titres. actualité euh, commenté bu te titre ñu daal di koy tàmbaleek foofu nga xamante ni sànq ñu ngi doon waxtaan ci euh, réew mi quotidien Birahim euh, qui est revenu euh, largement sur quelque chose qui est assez important ba tey rek ñu desandi ci li nga xamante ni moo di nomination annoncée de délégué interministériel le premier ministre est mort vive le premier ministre. waaw ñu ngi koy wax dafa nekk ci jamono ji ñu nekk nii ministre amul ñu nekk ci benn situation boo xamee ni. mën nañ ko jàppee crise sanitaire urgence sanitaire am président la république am loo xamee ni daf ko bëgg mooy ñu baral liggéey bi ci fànn wu nekk. moo waral ci diggante ministère yi bu fekkee ni da doon am. Mm-hmm. luy takk parce que premier ministre moo doon taxaw. di xool li nga xam ne moom mooy gouvernement bi ku ci nekk ministère yi lañ la dénk ak euh, lañ la sas ndax yaa ngi koy doxal nu mu waree laata muy dellu ci président la république ba ci conseil des ministres xamal ko ni euh, liggéey bi ñu santoon ci nangam ak nangam ministère yeeg yëpp ku ci nekk def na ko waaye li indi euh, ay délégué interministériel mooy mu mën a am benn rapport fluide bu gaaw diggante par exemple tey ministère de la santé euh, ak euh, ministère du bi yore wàllu mm-hmm. budget comme geeg yooyu nga xam ne du am fenn fu muy tagee bu ministère la santé soxla ñu war a génne rapidement benn budget ci lu jëm ci xeex ci mbas mi mu mm-hmm. am yoon bu muy jaar boo xamee ni dara du ko euh, gàllankoor ba mu war a yéexal liggéey bi donc muy mel ni premier ministre ba ñu teggi na mu doon doxalee euh, pour ministères yi seen diggante ratax mën a gaaw. Mhm. léegi day am ay délégués interministériels yoo xamee ni loolu mooy doon seen liggéey daanaka dañoo dindi habillé déshabillé pour xamu pour habiller Jean luñ koy waxee <laughs> xeet googu la. Hadj Mansour sa xalaat ci loolu faak ñoom sa commentaire. dafay wane ni yan bi diis na. Mhm. loolu noonu dafay wane ni yan bi diis yan bi diis na te xëy na boo delloo gannaaw bu fekkee amoo woyof teg mën a nangu li juumoon il faut il faut nga def defin boo xamante ni bi parce que bul fàtte ni loolu lu néew lu muy am la ah, système bi nii doxalin bi hmm. ay délégué interministériel euh, xëy na bu ñu génnee seen cahier de charge ñu xam lu ñu leen teg hmm. mais vraiment ci dégg-dégg ak ni yoonu Sénégal di doxee ak ci wàllu histoire politique bu Sénégal histoire institutionnelle bu Sénégal defe naa bariwul lu mu doon am wala bokk hmm. taskatu xibaar yi ràññeewuñu xeetu fonction yooyu ci ci ci ni Sénégal di doxee Mhm. donc nag bu ñu demee ba gis seen utilité dafay wane ni kon xëy na dañu dindi woon lu mënta ñàkk wala yan bi dafa diis. question bi nag mooy bu yan diisee nga yokkaat sa bopp ca yan ba li wolof di wax ku boo yotle woo doo ci yokki gàmm. Mhm. est-ce que délégué interministériel ministériel yooyu financièrement ci wàllu nekkin parce que ay fonctionnaire ay kilifa la ñuy doon. Mhm. est-ce que dañu leen di est-ce que dañuy jël kenn ku nekkoon dara ñu yokkal la ci loolu. mais financièrement dina am lu mu coûter suñu suñu budget bu Sénégal prévoiroon nañu ko wala déet yooyu yëpp dañ ciy tenir compte est-ce que ñoom seen i ay fonctions lan mooy nekk seen i ay cabinet donc yooyu buñ ci buñ ci tenir compte yi est-ce que du diis loolu ci suñu budget mm-hmm. donc ñu ngi yokk ay gamb ci li ñuy boote déjà kumba si ñuy boote euh, jotul mm-hmm. donc est-ce que bu yàggee duñu ko woowee euh, tâtonnement un peu mhm. loolu laa doon bëgg laaj sax Mame Mbaye loolu laa doon bëgg laaj Siré Sy ndax est-ce que exactement gouvernement du Sénégal ndax nekkul ci tâtonnement parce que dindi nañ fi poste de premier ministre léegi ñu ngi fi wax ay euh, délégué interministériel on se retrouve pas c'est une cacophonie bon si je peux le dire ainsi tout à fait bon mën na bañ nekk tâtonnement mais moo nekk kersa xam nga président Macky Sall bokk na ci trait de caractère am boo koy nit koo xam ne bëggul pression buggul pression buggul ko koy fitne ku koy busculer ba mu teggee post premier ministre ñu bëri dañ ko ni doo dem premier ministre c'est indispensable léegi bu mu demee ba à l'épreuve il s'est mhm. rendu compte que gars yi ils ont raison mais xaw na am kersa pour indiwaat ko parce que peut-être que mi ngi xalaat ni su ko indiwaatee il va prêter le flanc gars yi nañ ko ni waaye yow cuune nga ko mhm. xamoon nga et cetera mhm. mais euh, xam nga action publique gouverner loolu amul gàcce li amoon gàcce kaj mooy nga bañ a jéem. Mhm. mais yow jàpp nga ni en tel moment que war nga mën a yenn affaire bi war nga mën a changer structure bi nga changer ko mais boo demee ba xam ni kiiwul li gën mooy euh, li ko euh, Mansour waxee nga am hauteur revenir à ci fondamentaux yi xam nga lu tax. Mhm. parce que soo bëggee ne gars yi li ñu wax dëgg la. mais dinaa ko indi mais dinaa ko tuddee neneen wala dinaa ko defee neneen mais en fait moom mbóot mi même chose la da ngay mujj gi li euh, soxna Yacine wax mooy am mooy tu te propre jeu. Mm-hmm. parce que yow fii ñun li ñu xam mooy ministre. est-ce que moom délégué interministériel yi du point de vue protocolaire est-ce que ce sont au-dessus du ministre ou au-dessous du ministre daa defee def deuxièmement aussi en termes de euh, de prise en charge xam nga tey ji boo nee ñaata ministère na yam nga ni da ngay def délégué interministériel est-ce que benn délégué sa vaut pour deux ou trois ministres des coordonnées est-ce que moom deux ministres lay coordonné ak bu ñuy coordonné yan ministres lay coordonné surtout que affaire yi dafa xaw a jaxasoo kii mën na nekk santé affaire am am impliqué wu fële et cetera mm-hmm. donc mm-hmm. li gën mm-hmm. mooy au lieu ñuy créer ay charges supplémentaires ñuy gën ñuy indi ay conflits de euh, de de de personnes ah. ay ay ay ay ay ay euh, ay problèmes. Mmh. ñu reveniraat vers les fondamentaux. revenir vers les fondamentaux c'est restaurer. surtout que surtout qu'au bu ñuy wax ne euh, dañuy réduire train de vie bu. Euh, état bi ñu ñëw si wax si financièrement dafay daal taxaw. très bien ba pare euh, te loolu vraiment ñu ngi koy message bu ñuy lancer président rapidement. rapidement Kine Mohamed. ñu a a expliquer liggéeyu délégué yooyu. mais ce sera très difficile. parce que du coup doo xam sax. différence bi en fait lan lay doon. Mm-hmm. délégué yooyu ak ci euh, rôle bi nga xam te ni. Mm-hmm. premier ministre mi ngi ko doon def. du coup li Mansour wax man man loolu laa loolu laa ànd. peut-être mm-hmm. le président Macky Sall xam na ne. Euh, supprimer premier ministre. nekk na lu jafe ci moom te waru ko woon waru ko woon mën a def bëgg rectifier le tir xëy na bëgg a samp leneen parce que am une fois nu ko waxee fii yan bi diis mhm. boo juumee nangul la nangul juume parce que ak doxalin moom moo demee noonu ci ci ci réew mais loolu mooy grandeur mi ngi noonu ba tey rek dañuy daal di descendi euh, ci euh, li nga xam ne moo di titre commenté yi ñu daal di dem directement rek ci le témoin quotidien mi dellu si waat ci affaire euh, maître Boubacar Sèye bi moom nag li mu bind mooy tey ci suba dit considéré comme une loi liberticide faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles Birahim très rapidement la bu samp euh, diffusion de fausses nouvelles euh, parce que dafa am benn article boo xam ne mu ngi ci tënku euh, ci biir code de procédure pénale su ma juumul waaye diffusion de fausses nouvelles kañ la ñuy taxaw ne nii diffusion de fausses nouvelles am na ndax kii dafa am laaj bu mu samp. ne ni nangami milliards la ñu fi dugaloon euh, ci wàllug euh, xeex migration nangami milliards yooyu fan lañ ko dugal. Mhm. waaye mu njort ci loo xamee ne peut-être euh, loolu la nguur gi wala régime bi jàpp ni. Mhm. diffusion de fausses nouvelles la. Mhm. coole nag mooy est-ce que am nga sañ-sañu laaj. wala nga dut baaraamu tuuma ndax tontu bi warul doon ñu ubbi enquête ne ni lii nga ñu tuumaal nii la demee. Euh, mhm. demewul ni nga ko waxee. Mhm. c'est ça la question. merci beaucoup euh, Birahim Touré merci beaucoup Hadj Mansour merci Siré Sy di la remercier it Mohamed Diop à 7h57 euh, dañuy daal dem rek jëli suñu petit.